sëñ bi ñu ngi lay ñu ngi lay fay bu baax. tur beeg sant Papa Samba Ndiaye. Papa Samba ñu gis ne tey ci 19h le président de la République Macky Sall dafa war a génn wax ak askanam lan la ñu jàppandiku nii bu génnee dina dina dina dina dina si mën a wax waxtaan ak askanam ñu dégg. leen rek na Macky na na na na na na xam ne fi mu toll nii réew mi dafa tënku te moom rek moo ko mën a tinki manam ni mu tinké tënkee wax nan euh, mom bu ko ne sais bi waxut réew mi day gëna rek mom mo la gardien de la conscience mom suis veiller pour réew mi euh, euh, ñi di toppatoo ko constitution bi ku ci ku teggi li constitution bi wax euh, euh, euh, ñu ñu jaarale la yoon. kon nag moom mi nga xam ne moo nekk le gardien de de de de de la constitution mu war a jiitu ci loolu te li ko wax leer na leer na leer mi nag seetluñ ko dara ku nu fay ñaari mandat ci leer nañ am réew bu la defa loolu desalatu la dara moom it eh, li ko réew bi eh, joxoon delloo ne leen ko ndax eh, liggéey na ku xool di nga xam ne Macky Sall liggéey na réew bi xanaa nag ko ko waxee bakkanam baa waxee loolu ko neex waaye moom ko koo xool xam ne li liggéey ci réew mi liggéeyam bii nag fii la mën a jaaree ah, ah, am ndam ba faaw fu mu

lu dul loolu képp ku liir leneen lu dul loolu ba mu def euh, leneen bis bu daanoo fee la koy toog di ko ree li ko constitution bi wax mooy na def na ko organiser dans le meilleurs délais mooy le deux loolu mooy mbir mi na ko def dell réew mi réew mi nekk ci jàmm mu nekk ci jàmm mu jóge fi nag am ndam nag ilaa yow mi diini ay doomam di ko fekke ay sëtam di ko fekke lan mooy sa kàddu xanaa di di di dellu di ko ñaanaat rek ne ko bu mu fa def mukk ëllëg lu yàq wayu doomam. maaleykum salaam. tur nan la. Mbaye Ndiaye. waaw ah, Mbaye gis nañ tey Macky Sall dafa war a wax wax askanam 19h lan la ñuy xaarandi ci moom bu bu génnee mu wax ak askan. Ah, li ñuy xaarandi ci moom de wax dëgg yàlla ku ko bëgg ak soppam ak fansam yépp mooy mu génn rek dëggal boppam dëggal boppam bi mooy mu bàyyi datu élection bi ñu daal di koy voté ku gañe jël wala lenn rek ñu li mu proposé muy ñaari at yi ah ñu ngi ko ciy xaar bu fekkee loolu lay def ñu ngi koy déglu bu fekkee tamit day dëggal boppam def élection yi ñoo ngi koy déglu lu mu ci mën a doon daal ñun nañ ci ànd ak sunu yar ak sunu teey te déglu ko ndax fi mu toll nii amatul xeex xuloo fi mu toll nii affaire bi xel la rek xel la rek ak xalaat na xale yi yaru mag ñi yaru ñu toog déglu ko ba lan lan nga gis ni bu ko waxee tey réew mi dina mën a dellu si jàmm. xanaa nag mu daal bàyyi élection yi rek ñu def ci jàmm ak salaam réew mi nekk ci leneen lu mu def tamit ah duma ma ne dina dem de mais dafay métti ci ñun dina métti ndax ñun suñuy doom dañuy génn mënuñ ñun mën nañoo téye suñu bopp mais mënuñoo téye suñuy doom te fintoon ni xelu normal tul ku tëdd sax doo nelaw waaw ndax jaaxle rek nak jaaxle kese ñun daal man man man man boog fan sam laa man man tey bu toogoon ci la may dàqale waaye su ma sañoon Macky maa ngi lay ñaan ngir jëmmi Serigne Fallou Macky bàyyil élection yi mu dem ku ku dem. maaleykum salaam. tur bi la. man Ngagne Mbaye la. Ngagne Mbaye ñu gis ne Macky Sall tey si 19 dafa war a wax ak askan bi lan la ñuy xaarande ci moom. waaw Macky Sall xanaa ñu njortu ne jàmm rek ndax gis nañ ni bi mu jëlee décision reporter élection yi. dogal conseil constitutionnel génn dafa nangu kon tey su su bëggee génnaat wax ak ñu gis fan yi passé détenu yi ñu fi libéré yëpp kon dañuy jàpp ni jàmm rek la bëgg a wax ndax ku wax Macky Sall lu wax dëgg rek faroo fenn xam ni depuis l'indépendance il est le meilleur président am na bilan liggéey na ci côté yëpp waaw kon bu ñëwee ba fii doo liggéey sa togg sa añ ba mu ñor ba daa desul loolu bàyyi ci jàmm nga bëgg ko yàq ci ay rapport élection waaw heureusement nag bi mu nangoo dogal bi nanguwaat ne dina woo gaa yëpp ñu waxtaan jàpp élection yi loolu moom ñu ngi koy rafet bu baax a baax jàngatee si say wax mën nañu jàpp ni dina ñëwaat joxe comme ni ko gaa yi waxee le meilleure date possible. waaw loolu loolu moom loolu la wax bi mu mujjee génn ne ànd naa ci dogal bi. kon dañuy jàpp ne tey dafay ñëw pour confirmer rek ñuy ñaan mu bàyyi détenu yëpp. Ousmane Sonko ak euh, Bassirou Diomaye man bu ma sañoon en tant que man koo xamante ni 2012 ba léegi Macky Sall rek laa rek laay voté voté musuma voté beneen candidat bu dul Macky bu ñëwee ba tey su ma sañoon day bàyyi Sonko ak amul sax Sonko di yebal Diomaye na bàyyi ñëpp ñu bokk parce que moom li muy liggéey liggéey na ko macha allah rafet na Macky Sall war mun a jeexal dem jam ñaajo gi dëkk fa bañ bokk président yi nga xam ne buñ jeexalee dañuy jël vol dem dëkki Europe. parce que liguey nako fi lo xamantene warna paré toga toogaat gérer partem bi pourquoi pas comme constitution néna nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mu bàyyi ren élection yi dial gars xol 2029 deux 2030 élection day amaat Macky Sall warna na mën a ñëw bokkaat loolu li koy may mooy mu organiser élection yi jaar yoon ku gagné ñu xam ya gagné après mu continuer xam nga loolu rek la. deuk sa dernier kàddu. wa jamm rek di ñaan jamm di wax jeunes yëpp ñu xam ni xeex bi amul njëriñ ñun indépendance amuñu ko ci xeex jaloog moo ñu ko may kon Macky bu wootee jaloog lider yi nga xam dañoo gëm seen réew nañu dem ñu waxtaanee réew mi ndax moo ñu ñor ñu bañ a xool ku nekk sa intérêt personnel waaw jàmm daal ku ko wootewul xam nga pour man bëggoo réew mi daal. Euh, aleykum salaam wa rahmatulah. mën xam tur bi ak sant. Euh, Massamba Mbaye la. masamba ñu gis ni tey le président de la République Macky Sall dafa war a génn 19 heures wax ak askan bi lan la ñuy xaarande ci moom. bon yaakaar ni dina joxe bésu élection yi te mu nekk li nga xam ni tey moom la ñëpp di xaar sénégalais yëpp moom la ñuy xaar te aussi tamit mu nekk benn porte de sortie bu baax ci moom parce que tey dañ ko dénk na xam ni dañ ko dénk bu ñu la dénkee nag mbir ba ba muy waaj a jeex defal li la war nga génn par la grande porte daanaka mooy mooy moom la ñuy xaar en tout cas ci waxinam quoi.

jërëjëf lan moo nekkoon sa dernier cadre. bon di wax ni euh, Sénégal képp ku fi jiite na xam ni dañ ko dénk ndax nguur nguur yàlla rek mooy dëgg quoi. yii nii nii yëpp dañuy ëllëg suñu histoire fii lay des quoi te tey jii nii nga am euh, wax maanaam nga am nettali bu rafet moo gën fuuf ñu lay naan euh, nu mu tëdd kii moo fi defoon lii wala kii moo fi defoon lii lu mat a sóoraale la.